dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien ak grand place ñu xëy fekk fa Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes mu xëy wax ay dëggam nee na lii nga xam ne mooy coronavirus maanaam la adduna bi du loo xam ne ab feebar la ba ñu koy fàcc li fi wàcc ci adduna bi balaa la boo xam ne yàlla sunu borom moo ko fi andi te lenn rekk moo ko fi mën a jëlee maanaam sàkk sarax def ay ñaan te tuub delluwaat ci yàlla sunu borom suñu ko defee coronavirus mën naa jóge ci réew man nag amul kenn koo xam ne dina tax ma nekk fii di ko xeex wala di contre gouvernement Serigne Mbaye Sy Mansour daal di wax ne bëri na ay sénégalais yoo xam ne maanaam dañoo dëgër bopp ñenn ñi dañoo xamul xaali wala kasirana yéen a kaay gii de la turbine mu xëy dañu xamal lan ñu coronavirus ak law gi nga xam ne ma law ci réew mi li nga xam ne moom la état bu Sénégal tere bëri na ci askan wi ñoo xam ne maanaam wàcco wuñu ak moom respecté wuñu ko ndax tey la rassemblement yi gën a bëri tey la askanu Sénégal ñu ëpp si ñoom lànk kandaare bañ a sol ay masque maanaam mbirum xamadi gi mbirum réew jaawande gi nga xam ne moo ne cobbay ci réew mi dina taax coronavirus maanaam gën a law ci réew mi ndax ca diwaanu Tamba ay ndaw ñoo xam ne ñoo fa doon football ñu daal leen koy tere tax ñu daal di song gendarmerie bu Tamba yéen a kaay gii di réew mi quotidien ñu fekk fa gouverneur bu Tamba la mu xamle nee na ndaw ñi nga xam ne ñoo attaqué gendarmerie bi maanaam ñu leen teg loxo yéen kaay gii dala la mu xëy di ñu xamal lan ñu coronavirus ak law gi nga xam ne moom lay law ci réew mi ginnaaw tabaski gi gàmmu gi ak màggal gi ak ubbite université yi ma ngi ñëw te nag soo muy tuule wopp ji dina gën a tasaaroo yéenekaay gi di L'As ñu xëy fekk fa caat bu yaana maar nee na su dee am na kenn koo xam ne maanaam respecté wut li nga xam ne mooy mesure barrière yi maanaam Marième Faye Sall la mi nga xam ne mooy première dame ndax bokk na si ñi nga xamante ni dañuy dem ci ay ndaje cérémonie yoo xamante ni ay cérémonie de mariage la yéenekaay gi di exclusif mu xëy di ñu xamal naan ñu Marième Faye Sall ak doxalin wi nga xam ne moom lay doxee ak jalgati li nga xam ne mooy mesure barrière yi maanaam yëfu maa tey dëgg la yéenekaay gi di la témoin ñu xëy fekk fa docteur Mamadou Ngom Boubacar Sams di ab mathématicien nee na Sénégal nañu xaar ci njeexantalu décembre gi maanaam lu toll si junne juróomi téeméer ci ay nit ñoo xam ne danañu ñàkk seen bakkan ci coronavirus lu toll si juróom benn fukk ak juróom-ñaari junni ci ay nit ñu amee woppi coronavirus bay boo ñu daal di koy xaar diwaanu Ziguinchor jamono ji cas communautaire ya maanaam ma nga fa mel ni tulleeg màlle ndax ci benn fan lu toll ci fukk ak ñaar ci ay cas communautaire gis nañu ko Ziguinchor ra a kaay gi de la témoin ay spécialiste maanaam ñoo xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllu wér gi yarama nee nañu confinement jamono ji dépassé nañ ko ndax virus bi maanaam ma ngi ci biir njaboot gee ñoom nag nee na nañu senegal ci boppam soo moytuwulee lu méttee metti dina ko daal di dal ndax coronavirus maanaam dañu ko seetaan virus bi di dox nu mu ko neexee di dugg ak génn te kenn waxu ko dara yéen kaay gii di réew mi ko di cee ba caat bu yaa naa mar woon ak état bu senegal ngir nag mu gérer événement yi nga xam ne maanaam moom la ñu dëgmal di gàmmu di màggal ndax moom rappeur bi la mu xamle nee na état bu Sénégal moo war a am fulla am fayda waxtaan ak kilifa diine yi ngir ñu am solution annulé màggalu Tuuba ak li nga xam ne mooy gàmm gi ndax suñu ko deful coronavirus maanaam mën naa gën law ci réewum Sénégal yéen kay wal faj Walfadjri mu ñu xamal nañu ñi nga xamante ni ñoo amee jàngoroy xol maanaam ñoo ngi faatu ci loo xamante ni kenn yëgu ko ndax nag centre yi nga xam ne fa lañ doon war a faje ñi ngi am jàngoroy xol maanaam dañu fay faje ñi amee covid 19 moo tax ñi amee jàngoroy xol maanaam kenn faju leen te ñoo ngi dee yéen kay gii di Source A mu xëy di ñu ñu hôtel yi nga xam ne maanaam fa ñu doon dugal ñi amee corona coronavirus ak ñi nga xam ne dañoo njort ne dañoo amee coronavirus état bu Sénégal waroon koo fay ba léegi nii ma ngi dawloo borom hôtel yi maanaam fay guñ leen seenu xaalis te joxu guñ leen benn app bu leer yéen kaay gii de l'observateur mu xëy di ñu xamal lan ñu bala ngay digle cangaay day fekk nga sangu ba noppi état bu Sénégal jamono ji ñoom ñoo nekkul ci yoon ndax amul benn texte boo xam ne maanaam mooy tere dox ci mbenn mi de tëkkoo masque askan wi kenn ku nekk su ko neexee mën naa attaqué li nga xam ne mooy arrêté bu Aly Ngouille Ndiaye bi ca Cour suprême yéen xëy di ñu xamal laan ñu Guy Marius Sagna ni ki démb teg nañu ko loxo ci buntu préfecture bu Ndakaaru da doon yóbbu nag ab lettre de marche journal bi nee na mujjee nañu ko bàyyi fukki fan ak ñeent ci weeru août bi ñu dëgmal ñoom waa aar li ñu bokk ñu amal manifestation maître Khoureyssi Ba mi nga xam ne mooy ab avocat moom li mu gis mooy acharnement la ñuy def ci Guy Marius Sagna Assane Samb xëy jël xalimaam nee na jàpp gi nga xam ne moom la ñuy jàpp Guy Marius Sagna maanaam tegiwul fenn te jàpp gu bëri gi di ko garde à vue ak dugu dugal ci kaso bi day dem bu duutu ko lijjanteeti doomu Macky Sall bi maanaam seen virus mooy Guy Marius Sagna su dee Macky Sall fexe na ba opposition bi kenn waxatul activiste yi ñoom ñoo ngi def seen rôle bu baax a baax te jàpp gi nga xam ne nag maanaam moom la ñuy jàpp Guy Marius Sagna moo teguwul fenn bëgg a yore réew mi ba ko wax nga daal di koy garde à vue loolee ci boppam mënta nekk yéen kaay gii di direct news ñu xëy fekk fa syndicat bi du sud tenn ñoom nag jàpp nañ ne ay léexóori ki njaaxuma am na ci marché yi nga xamante ni Senelec ma ngi koy joxe te ñoom ñoo ngi sàkku ay explication ci contre intelligent israélien yi yéen kaay gii di Walf Fadjri mu ñu xamalaan ñu police jamono ji ma ngi waaye Touba bu baax a baax ndax lu toll si juróom ñeenti téeméer ci ay nit yoo xam ne teg nañu leen loxo ñii nag dañu doon trafiqué ay arme ñii doon trafiqué drogue ñi nekkoon ci wàllum sexe ñii wàllum sàngara yéen i gi de Libération mu xëy di ñu xamal laan ñu ceet diwaanu yaraax am na ko ñu fa teg loxo koo xam ne maanaam yàpp fas la doon jaay Les Échos xëy ci Wally Seck mi nga xam ne maanaam tuddaan nañ ko ci ak njublang jëm ci ay oto yoo xam ne dañu koo sàcc ca France daal di ko koy jaay Sadio Mané juróom-ñaareelu bi nga xam ne moo gën a ci àdduna bi transfert Kalidou Koulibaly waa Naples ñoom lu toll ci quatre-vingt-dix millions d'euros maanaam la ñuy sàkku yéen kay gi dee saat mu ñu xamal laan ñu Kalidou bali ak waa Naples seen diggante neexoon na lool ay at ci ginnaaw waaye nag jamono ji am na ay ñol-ñol ndax match bi nga xam ne moo doxoon diggante Naples ak FC Barcelone ginnaaw match bi Kalidou Koulibaly maanaam dañu ko doon critiquer di ko ŋàññi te soo moytuwulee sëy bi doon dox seen diggante ci tas la jëm